ange billahi mina seytaani rajim ange billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di wax asalaamaaleykum kajoor asalaamaaleykum pekkis gi ma dëkk maa ngi leen di ziaraat bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waaye di tàmbali ziar bi sëñ Abdou Karim Mbacke Fallilou mi nga xam ne moo nekk sunu bunt ci biir kër sëñ Fallou bunt boobu mu nekk sunu bunt ci biir kër sëñ Fallou moo waral ñu nekk ci waajtaayu Kazu Rajab waaye di waajalaale bis boo nga xam ne ci la ñuy tàmbali sunu rajab di le 5 février incha allah rabbi di ci woo pekkes gépp di ci woo ñëpp di ci woo ñëpp sunu ay xarit sunuy am di jàmm sunuy mbokku taalibe yi nga xam ne ñun ñu ak ñoom ñoo bokk Serigne fàll dëkk Pekes ak li ko wër maa ngi leen di woo ci bis boobu bis boobu nag nga xam ni mooy le 5 ci la ñuy tàmbali suñu kastu rajab suñu rajab euh, di dimanche incha allah rabbi ñoo ngi ciy woo Pekes yëpp Pekes yëpp suñu mbokk taalibe suñuy xarit suñuy am di jàmm waaye bis boobu nga xam ne dañ koo jagleel madame Mbaye Absa Touré di ak sëriñ Maguette Seck bu Ngaay maam Thierno Dem Pekes sëriñ duuf ñooñu nga xam ni ñooñu leen tuddee bis boobu di la cinq ñoo ngi ciy woo ñëpp ñëpp sunuy xarit Alaaji Gay ci ñun tuddee bis bi ci la bokk moo Modou Njëng ci ñun tuddee bis bi ci la bokk kon ñoo ngi woon ñëpp Pekes gépp ak li ko wër ñoo ngi leen ci woo ci bis boobu nga xam ne ci la ñuy tàmbali rajab saa bu ne di ko waajal di ci bernde di ci bernde di ci bernde ba keroog ñu fi xëyee rek wala ñu fi gonte dem Touba màggal yi ci la ñuy arrêté bernde bi bu ñu xësee tàmbali la cinq ci lay continuer chaque jour ay bernde la chaque jour ay bernde la chaque jour ay bernde la ba bis bi ñëw ñu dem màggal yi incha allah rabbi yàlla nañu sëñ Fallou kattanal dooleel ñu moom mi nga xam ne balay sëbri sëriñ Mbàkke Maram mooy suñu lépp amuñu dara ci àdduna lu dul sëñ Fallou gëmuñu dara ci àdduna lu dul sëñ Fallou sëñ Fallou rek lañ gëm aw ma ndey aw ma bàyyi sëñ Fallou laa am barki sëriñ Tuubaa sëñ Fallou rek am sëñ Fallou rek laa am sëñ Fallou rek laa bëgg sëñ Fallou rek laa barki sëriñ Tuubaa kon bis boobu daal maa ngi ciy woo ñëpp di mbay sama xarit nga xam ni danoo yàgg lool macha allah maa moom du politique ba ñuy ànd ay xale yu ndaw lañ ba tey ñuy ànd soxnaam di sama lépp jox ma cër fonk ma bëgg ma lool moo tax ma delloo njukkal cër boobu ndax su ma joxee ab sa cër nag sama càmmiñ loolu génne ci lu bari moom moo tax ndax ab sa jox ma cër bu ma jox ak respect bu ma jox moo tax nag ma delloo njukkal Jibril Mbay jël cër boobu jox ko ab sa Touré madame Mbay di ci woo ñëpp yaay faal yi ak baay faal yi ñëpp maa ngi leen ci woo sëriñ daam kan sama xarit nga xam ni ñoo bokk yoon wi di taal bu Cheikh Rafaal gëm ko lool bugg ko maa ngi ko ci woo mboolem daayira bu wër tund kajoor te yëngu ci Cheikh Rafaal rek maa ngi lay woo ci bis boobu damay bañ lim du juum mbaa du ma matal waaye su ma siblee Serigne Dame Kane yaakaar naa wax naa ñëpp. le cinq février dimanche. fii lay amee ci kër gi. muy bisu waajal màggal Kazu Rajab nga xam ne ci la ñuy tàmbali rajab bi di ko continuer. di ko continuer ba keroog ñuy gont dem màggali waaw daayira bi yëpp nag makaarimal axlaa yëpp di ci wax waa ngaay sama doom yooyu nga xam ni maa ngi ñoom fu ma jëm 2003 ba tey maag sama doom yooyu ñu ànd ak man te jëmmi sëñ fal rek tax xooluñu ci man ci dara yëkkatiwuma dara di leen fay sëñ fal lu muy am fay moom ma leen di fayal ndax ñooñu sama digganteeg ñoom sëñ Fall la toppee wuñ ma dara xale yooyu yaay lañ ma def ma def leen doom fu ma gëstoo gis nañ sama wet kon fu ma jëm rek maa ngi ñooñ ñooy ànd sama doom yooyu ci ngaay ma ciy woo Sidi Mbay su ma waxee Sidi Mbay wax naa ñëpp ci ngaay waaw ma waxee Sidi Mbay rek wax naa ñëpp ci ngaay Marawat Majaañ Saw Ndakan ah jëwriñu ngaay daba sama doom. waa ngaay ñëpp waa Thiès waa Kébémer waa Mboro ak lu Kajoor gépp maa ngi leen ci woo ci bis boobu. cinq heures lay tàmbali ba guddi incha allah. waa carte bancaire yi ñu ngi nii waaw mi ngi nii carte yi am na téeméer. am na ñaar téeméer am na deux mille am na cinq mille am na dix mille maanaam am na ñaari junni am na carte bu fukki junni am na carte bu cent mille francs am na carte bu téeméer am bu ñaar téeméer am bu ñeent fukk bu cent francs sax am na fu sa doole nga dugg si ci barkeelu ci carte barkeelu yi ma ngi nii yii yu téeméer la yi quatre yu deux cent la maanaam kenn ku nekk rek fu sa doole yam carte bi deux cent lay def maanaam ñeent fukk yii yu téeméer la yu ci des am na yu deux mille am yu mille francs fu sa doole yam rek carte bi moom kenn waxul kenn bii nga war a jël waaye ku nekk liñ naan ginaar ba ci giléem junni ba ci ñaari junni téeméer ba benn dërëm lu ci waaye dugal rek ñu def ko ci màggalu sëñ Fall kon kart barke noonu la tëddee.